Euh, j'ai entendu dire que euh, votre père, euh, c'est un grand homme, un grand intellectuel. C'est un grand monsieur. Un grand monsieur. boo ñu doon décriral tey cette personne lan nga ñuy wax. bon gis nga li mu wax ci Youssou Ndour mën naa wax si moom dans son domaine qui est l'économie. Mhm. je pense c'est une sommité mondiale reconnue. waaw nit loo ko xamante ne il s'est donné pour cette matière ba ñu reconnaître ko ci. bon euh, am na lu bëri loo xamante ne xam nga tey buñ la nee tu es le premier sénégalais euh, à être agrégé en économie au niveau du CAMES xam nga loolu dafa rëy. waaw c'est énorme. parce que tu es déjà dans l'histoire ouais. euh, ce monsieur tout de même il est là macha allah yàlla na ko yàlla may mu yàgg fi te ànd ak wér. amiin man quand je, je je vois mon père taper encore aujourd'hui à l'ordinateur di bind ay livres boppam. <laughs> il a quand même vingt huit bouquins. vingt huit vingt huit bouquins dans sa propre matière waxuma la nag ñaata article la publié ak ñaata nit la jànga xam nga loolu tey tey ministre économie boo yëkkati économiste boo fi yëkkati mu ñëw mën a sa papa jàngal na ma. Hmm? ay douanier ay kon fu ma romb ñu ne ma ah on te doit respect parce que sa papa jàngal na ma xam nga loolu dafa fort aussi c'est un héritage fort. mais aussi jàpp naa ne au-delà de l'héritage mm-hmm. c'est un héritage aussi qui boo xamante ne il est difficile à porter. parce que chaque fois dañ lay challenger. waaw bon mais nag sant yàlla. parce que on ne choisit pas ses parents. c'est euh, kenn du choisir fi ngay juddoo. Mhm. yàlla moo lay nattoo li nga doon. dëgg wala mu teralee la wala mu teg la li nga doon nga gérer loolu yëpp nag te aussi c'est ça ton parcours et ton destin. waaye li ma la mën expliquer daal mooy. Hmm. kooku euh, ah. da ko fonk quoi. non man nee naa ko ginnaaw Cheikh Anta man quand moom laa fan ci intellectuel yi <laughs> ginnaaw Cheikh nag. macha allah alors euh, yan valeur la la inculqué euh, nga xamante ni dans la vie nekk nga ci ay situation ngay retrouver ces valeurs la nga xam ne lii sama papa moo ko def ci man. la principale le travail. liggéey liggéey rek la gëm gëmul leneen man chaque jour que jëfee dem naa Tamba politique tout ça nee na ma il faut travailler. il faut bosser à la sueur de ton front bu la liggéey moom buñ la ko dénk boo ko dénkaanee jiitu ca mhm. buñ la ko dénkee jiitu ci mujj ci voilà ce qu'il dit mais bon c'est un très grand mouride aussi hein waaw parce que yàlla moo def aussi sunu maam yi teel a ànd ak sëriñ Touba teel a ànd ak moom aussi ci bi yi teel ko jege mhm. waaw loolu aussi ce sont des valeurs yoo xamante ne il nous les a inculquées te loolu dama ci fier maanaam murit gi ma doon taalibe gi ma doon te mu def ko ci man depuis le basage te ma ñaan yàlla war koo mën a def ci sama ay doom. Mm-hmm. man euh, yàlla def na sama ñaar sama euh, jël naa suma ñaari doom yi kenn ki ma tuddee ko sëñ Saliou kenn ki ma tuddee ko sëñ Cheikh. Bambali macha allah kon kon sama ancrage foofu aussi dama ko koy sante mm-hmm. ndax loolu dafa bokk ci li nga xamante ne euh, ça fait partie de mois ça partie de li may damoo. Serigne Touba mooy sama essence man. mooy oh. sama sama mooy sama. raison de vivre spirituellement ci moom laay inspiré woo euh, mooy ki may yëngal mooy ci li nga xamante ne ci laay yëngu. macha allah waaw ça aussi il faut que je le dise clairement.